salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar nekk na sarsaara fa la defee xasidaam gu siiw googu xam di wa shukri liman kulli bihi saara lahu ridan duuna suxtin inda sarsaara ba xasida gi jeex amdi wa shukri liman kulli bihi saara law ridan doona suuq tin inda sarsara law sana iwarid waanil bila siqaatin musqaadali nekk na jaraariya jaraariya sax lenn ci siixay wérdu maaxuus foofu la ko jëlee xafiif ca la ko jëlee jaraariya fu tedd la foo xam ne alawi yu ni ñoo fa nekkoon ñoo fa nekk sax ba léegi fa la xaritam ba Cheikh Ahmad bun Bedd nekk fa la nekkoon fa la waxee woon waxam ji siiw jooju ne ataaniyal xayru min rabbi bi takraari laa siyama inda biiril xayri jaraari mooy yàlla may na ma wiiw fu mu mën a doon surtout nag bi ma nekkee jaraariya jaraariya lu ne xew na fa fa la xaritam yi dekkoon Cheikh Ahmad Beddi Cheikh Ahmad ibnu Cheikh Mamadul Xaafis foofu la nekkoon ñaar ñooñu nga xam ne ci tarixa tijaani yi ci kilifa yu mag yi ci lañ bokkoon di sëti Beddi di sëti Cheikh Mouhamadul Haafis al Alawi mi nga xam ne tey man des na ne tariqa tijaani moo ko andi ci Afrique yëpp. ren sax am na kër Touba bu ñu sanc bu taalibe yi sanc fii ci na baax ya yoo xam ni euh, sëñ Mourtala Bousso sëñ Mourtala Bousso ñëwoon na fi keroog ça fait même pas une semaine pour inaugurer ko loolu it lu bees la fii fii it ci bërëb bi euh, sëriñ Sidi nee na ma bëgg na fi sanc euh, ay mahadra maanaam ay kër yu jàngal diine fii. parce que xam-xam bokk na ci nga wéet ak moom te Cheikh Ahmadou Bamba da daan wax ci jamonoom sax jamonoom boobee mu daan wax haada dahrul firaari minal buyuuti ila sahaari jamono bii mooy jamono gàddaay jóge taax dem gànnaar wala dem euh, foo xam ni daal taax ne ko fa foofu ngay mën a am xam-xam foofu la diine bi di gën a sell ndax dëkk yi léegi dañoo bari ay tentative maanaam télévision yi téléphone yi fii moom boo fi amee réseau du bari Euh, accidentellement rek nga koy am walla gaa amul waaw donc fii fii fii la fii fii mooy fàkk moo fekk mbaax pour xam-xam ak wuti xam ak jaamu yàlla amul benn benn empêchement boo xam ne bii mën na la tere moo tax sax mën nañu fi ressourcé wu waaw euh, mën nañu fi def it tourisme culturel. waaw kon rek xumaag googu ku ne nekk na fa ak moom taalibe bi rakkam yu tedd yi tudd naa léegi Sëñ Afiya Mbakke ñu ëpp ci rakkam yi mbokki taalibe bi mag yëpp yam fa nekkaloon sëriñ Mor Penda moom nga xam ne dégg ngeen lu xis yu bari yéemu yëf xewoon ci moom euh, ku mel ne sëñ Mor Kuna Mbakke doomi ni jaayam yëpp doomi ni jaay sëñ Bousso bi yëpp te xamoon ngeen ne sëñ sëñ Tuubaa leen lañ féetaloon euh, tàmbale ko ci rek ñoom ñëpp ki ci mag ba ki ci mujj ñoom ñëpp rek sëñ Cheikhou ba ci sëñ Omar bi ci mujj ñoom ñëpp rek ñi ëpp ci ñoom fi nekk nañ fa nekk nañ ak moom foofa nga xamante ni mooy gànnaar ak magi taalibe yu bëree bari ak bokk yu bëree bari koo ñu bëree bëri da ngay dégg ñu naan nekkoon nañ xumaag Cheikh Ahmadul Kabir Mbay moom mag moomu nga xam ne mooy bàyyi bàyyi galo mbay mi ak ñu bëree bëri sëñ Afiya Ñang sëñ Abdou Diak Duyo sëñ Abdou Jah Duyooli sëñ Baara Faati Mbooj euh, lool nekkoon fa ca kiimaane woon lool bari yu xew ci diggante ak yeneen ñaari sëñ Baara Gaye sëñ Mad Lamin Gaye yëpp ñu bare bëri ci njaboot gi nekkoon fa daara jay doon taxaw bu baax a baax ni mu baaxoo taxawee lépp amoon fa xayma yi ci lañ dëkk ak mbaar yi waaye xam ngeen ne jàkka jaa nga fa woon ñu fay julli di fa naafila am na murtaniya bu ñaan wax Abdoulaye ibn ay bii moom la sëñ bi daan na ko loo daaray kaamil yi nga xam ne xam nga ko dañ koy def ci jumaay sëñ Touba yëpp ci àdduna si nga xam ne dañ fay wàccee kaamil suba ngoon xam ngeen ne murtani googu la ko sëñ bi digle woon te ñoroon ko loolu kuréel yi jàng xasaay te nga fa woon ak ñi jàng njàngu rajas ku mel ne sëñ Mor Kuna Mbàkke moom ma tudd léegi ku mel ne sëñ Afia Bousso ak ñeneen ñi nga xam ne leen di liggéey yëpp kon daal day mel ne rek daara ja taxawoon na fa samp woon na fa meloon ne ni mu war a ko doon ba tey foofu ci gànnaar lu ne xew na fa sëñ Touba ku ne fa jaayanteeg moom ci mbokki naar yi du ma wax sénégalais yi yi ko fa fekk si woon bari nañ lool waaye naar yi ñu baree bari jaayante nañoo moom foofa wax naa leen Ahmad ibn Xasan wax naa leen Mouhamad ibn Ijfaaq Omar al Yanqubi Cheikh Sidi Ahmad Lismahu ak mbooloo mu bëree bare bëri am na ci sax ñoo xam ne dañoo nekkoon ci yeneen tarixa waaye dañoo ñëwaat yeesalaat sëñ Tuubaa ñu ngi may nettali kilifa gu mag a mag wulul Ahmad yi di borom xam-xam bu mag a mag jëloon ñëwoon na sëñ bi ne ko jox ma li nga yor laa bëggoon kooku kilifa loon ci tarixal xaadiriya dañ Cheikh Ahmad Abdoul Ahmad yi moomu bëggoon sëñ Tuubaa la daana ko siyaare sax ginnaaw bi fi sëñ bi jógee daana ñëw ci barab bi eh, ku ko mos a laaj wërde danaan la am naa ñaari sanad yu ma yor mooy ñaari silsila ñaari ñaari wërde yu ma yor bu gàtt ak bu gudd boo ne ko ban mooy bu gudd bi mu ne mooy bi ma solo woon ci samay waajur mu dem ba Cheikh Abdoul Khadir Jilani boo ne ko ban mooy bu gàtta bi mooy leen mooy bi nga xam ne sëñ Tuubaa ko jëlee mu jëlee ko ci yonent kon ña fa sëñ Tuubaa bari na day mel ni kon kenn mësut a manqué ñëpp ko fonkoon ñëpp jaayante woon nag moom ñëpp ko toppoon. E, ardu saalihin bi tekki ne lu bari parce que fii am na turuqu suufanke yëpp nekk nañu fi fii am na qaadiriya fii am na chadiliya fii am na tijaniya am na muridisme it loolu dèjà benn béréb ci Mauritanie e, amul lii lépp te it e, borom zahir la ñu woon mantaka bii ba léegi sax. bari nañu ay ulama yoo xam ne yi ay kàng foore lañu waaw mën naa ci wax fii ki ñu gën a jege fii même pas 18 kilomètres Serigne Ba ba ñeneen ne ñoom moo yeesal diine gi léegi am nga yeneen it aalim yoo xam ne dañuy firi alxuraan di wax ci yeneen xam-xam maasu xaaj misri mi yit donc ba tey fii c'est le berceau de de de de la religion en Mauritanie ci wàllu xam-xam ak ci wàllu nitu yàlla les saints fii euh, zone bii daal. moom moo tax Cheikh Ahmadou Bamba ni fii ardu salihin maanaam c'est c'est la terre des saints waaw loolu feeñ ba léegi mi ngi feeñ alhamdulilah gis nañu barke boobu it foofu. ba sax suñ mbokki murtaniya yi nga xam ne ay wolof lañ nekkoon ay surafa it muy waa Garak Tungeen surafa yu tedd yooyu ñoom ñëpp ba tey it jaayante nañoo ak sëñ Tuubaa foofa toppoon ko lool ca fonk ko kon daal day mal ne ba mu nekkee foofa la ko naar boo xoon rek ma xattu rijaalil urbi xat kunte wal ujmu kon loolu lool woon mooy maxattu rixaal la woon bérébam béréb la woon boo xamante ni ñëpp daanañ ko fa fekk daanañ fa jëflanteeg moom sëñ bi def fa lu bare bari bind na fa taalif fa lu bëree bari def na fa ay fatwa daa ngeen dégg fatwa yu bëri yim fa def ci basmala ci jiim masalatul jiim fatwa ci wàllu tux sigaret ak yu mel noonu ak fatwa yu bëree bëri yoo xam ne daana ko defal naar yi ko defal yeen bind fa bind yu bari taalifa mii ngeen xam bëri na ci yoo xam ne foofa lañ ko defee da ngeen di dégg xutbu korite ak tabaski gi da ngeen di dégg ay midaadi ak yu ni mel da ngeen di dégg muxadimatul amdaax da ngeen dégg sax wa kaana xaqan alaynaa nasrul mu'miniin nga xam ne bi ko fa sëñ bi def amoon na xissa bu ci aju woon bu yéemoo yéemoo yéemu nga xamante nii rek day man ne looloo taxoon sëñ Tuubaa taalif ko mooy ngir am jafe-jafe yi fa amoon sëñ bi bëgg ko ci safara waaye nam fa taalife lu bari ni ko noonu ñoom waa Murtani noonu lañ taalife ci moom ñu bare bari ci naar yi fa nekkoon bind nañ sëñ bi taalif yu kawe kawe kawe kawe Cheikh Sidi Ahmadou Bachir moom mi ma tudd léegi lenn ci te téere bi mu taalif indi na ci lu bare bare ci sëñ Touba ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Mouhamad ibn Abdullah al Alawi taalif na ci sëñ Touba Nafahatul Miskiya kon ñi bind ci sëñ bi ci foofu ci gànnaar bare nañ buñ ne bindi nag mooy bind ci histoire ak ay jaar-jaaram waaye nag dàqoowut ak na ñi way ci moom ñi way ci way yi moom bari na lool defe naa bu ngeen ñëwee fii rek da ngeen gis diwaan yu mag a mag ci bibliothèque bi lu yàgg yàgg yàgg yoo xam ne jamono jamonoy Cheikh Madou Bachir lañ ko dajale woon mu bari lool mbindum sax mbindum naar la woon mi ngi ci bibliothèque Sëñ Bachiru tey waaye nag ngeen xam ne lu baree baree baree bare topp na ci ginnaaw bi ci ay way yoo xamante ni ñëwut ak siwut waaye ma nga fa ñu mokkal ko ndax am na sax benn benn yoo xam ne rek taalif nañ lu baree baree bare ci Cheikhul Khadim kon daal sëñ bi ak dundam mu tani dund gu fees a fees la dund gu rëy rëy la loolu mu junjoon ne yàlla da ko faa yóbbu ngir fay ko feeñ na bu baax a baax a baax ajaran kabiran wa sawaaban wa jaza wal du li fi ramadana na jaza moo tax da ngay gis sax suñu maam yu tedd yi seen se ñëpp da ngay gis comme niñ daan waxe bu njëkk diw fekke na badar diw fekke na nagam daa nga dégg bootaayi murid yi diw maamam demoon na xumaag diw maamam defoon na nangam diw maamam yenn woon na gaal ga demoon xumaag kon daal daraja la woon fekk fa Cheikhul Khadim foofa ca gànnaar ngir rek may ya nga xamante ni yàlla may na ko fa diggante ba mu fa nekk ci ay ñeenti at waaye ñëpp ko fa fekkoon muy muy mbokki Mauritaniens yi surtout ak ñu jóge woon senegal ñii doon jël ci moom wérd jaayanteeg moom ñii ñëwoon ngir sàkk mu ñaanal leen ñii ñu bari wane na ci ñoom xarbaax yu bari bari ak ñeneen ñoo xam sax dañ doon ñëw rek ngir ziyaare ko noonu rek delluwaat kon daal diggante boobu diggante bu fees del del del del la woon kenn rek wuti wutoon ak moom ñëpp ko bëggoon ñëpp ko toppoon ñëpp a àndoon ak moom ñëpp a moom ba ni nga xamante ni. nii lañ ko autorisé te ci mu jóge fa ci autorisation bu xam a xam boo xamante ni sunu maam maam Cheikh Ibrahima Fall dañ ne moo ko andi ginnaaw biñ ko lijjantee euh, andil ko ko tubaab bi bind ko ñu andil ko ko mu dellu si waat waaye nag la mu fay jóge jóge teewut kóllëreem ak naaree di des kóllëreem ak murteen di des ba fu mu mos a nekk rek ña nga ko fay fekk bu dee ci njaareem daanaka ay kees yoo xamante ni ñoom rek ñoo fa daan nekk fa fa lañ daan wàcc mu leen di dalal ci dal ay dalukaay boog sax laa bëgg a yoo xam ne ñoom ñoo fa waxtu wu mën a doon mu ñooy ñi nga xam ne mosuñ faa ñàkk naka jëkk ña nga foon nekk noon ba tey ba ni nga xamante ni lu jiitu loolu sax nekk mooy nekk njaareem da ngeen wax naa leen ne leen euh, fii ci Touba kër sëñ bu la loon njëriñ kóllëre nag noonu la yàggee moo tax njabootam gi téye woon ko bu baax a baax Cheikh Modou Moustapha nga xam ne ni ñu waaye woon sëñ Touba noonu lañ ko ko waaye moom sëñ Modou Moustapha qad istafatil xilaafatu Moustaphaha wa qad balagat biha aqsamunaha falaa hiya yabtaxi cheyan siwaha wala huwa yabtaxi ahadan siwahu wala hiya tabtaxi ahadan siwahu sëñ Fallu noonu la ko dundale min al adli an yunma ila al fadili al fadlu wala aarafi an yarfa al fail al filu ni ko noonu ba tey Cheikh Ahmadul Bachir mi nga xam ne kenn la woon ci ñoom noonu la wooyee ba ci Cheikh Murtada mi nga xam ne moom mujj ci njabootam nga xam ne sax yàlla dogal na jot na faa jànge ba ci Cheikh Mouhamad bin Abi Madiane moom nekkoon ba mu fay jógee mu tàggatoo woon ak moom ci ay béy yu am solo bi Cheikh Chibhuka laa yaxfa ala ahadin illa ala ahadin xaalin min alxaladi shaabahtahu fi zakain waafirin wa tuqan wa fi ljabini wa fi lxaddayni waljasadi wa fi tilawati quranin wa fi silatin wa fi salatin wa sawmin wa tinabidati noonu la wooyee ci njabootu Sëñ Tuubaa gi ñëw ñoom ñëpp ba Cheikh Saalih Mbacké sonnoon na ci lool daana wax ba tàyyi ne bu sañoon Mauritanie yi nañ meloon jamono Sëñ Tuubaa am ba léegi mooy nañ fa bëree woon noonu nañ fi bëree alhamdulilah yàlla nangul na ko loolu njabootam gi ñëw ginnaawam gépp ba ni mu ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne moom kenn la ci ñoom jàppal na ni mu dégg araab noonu la dégg xasaaniya seen langue boobu nekkoon na fa ab diggante ci mabruk doon fa jànge ci moom muxtaarul ablool noonu la leen fonke jox leen wàccuwaay jàpp naa ne kuy seetlu na weer wu am ca kilifa gu mag mag jóge ci ñoom ku bokk ci zawaayaay taalibe Sëñ Tuubaa wala ci xaritam yi wala demee ñëw teral la fi teral la lool li koy seereel rek màggal gu mag yi nga xam ne tey ñoom am nañ fi wàccuwaay bu mag mag ñoom murtaniyen yi ba am na kër gu leen sëñ bi jagleel ci héliport nga xam ne ñoom rek ñoo fay nekk ak li nga xam ne moo aju ci ñoom ak ñi leen di toppatoo muy taxawaay yu am solo lépp rek nag bu ko waa Touba di def xalifa sëñ Touba yi de def ba Cheikh Mountakha mi mooy ngir rek ba dàkk ci bëgg-bëggub sëñ Touba ndax ku ne xam ne sëñ Touba bëggoon na leen wa billahi taala tawfiq wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf qasadu siyaaratin faaraxu daarayni aw saara naar yaa nga naan waay Kajoor a sunum réew Seex Bamba mbër ma fa feeñ feeñut fa gànnaaraay salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar